dem dil si gaa ngi nii ku daam dem si gaa nii ko fi naw a cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba lépp lu mu naal te yéene ko liggéeyal way juróom bu baax mu defee ko ni mu ko bëggee tànd ko ak mboolem njaboot gi di jël nuyoo bu sell boobu di ko teg ci loxo sëñ Abdul Baax yi mi nga xam ne mi ngi ci jataay bi te moo àndoon ak lenn ci dongo yi ñëw ca kër ga ngir yégal sunu bis bi kon noo ngi jël nuyoo mbooloo mi yépp di jël nuyoo sëriñ bi jaaree ko ci sëñ Abdul Baax yi mu jàllaleen na ko ci sëriñ bi ak ci njaboot gi yépp nuyu ahlu xasaayid yi nuy fu fekk di ko tàmbalee ci alxaaji akasa sàmb di ko nuyu di ko ziyaara bu baax di ko ñaanal yàlla sunu boroom gën koo dëgëral te wéral ko ba yéene yi mu yéene ca liggéeyal ko sëriñ Tuubaa ci xasaayid yi mu defe ko ni mu ko bëggee barke xaadimu rasul di siyaare sëñ Abdul Qadir Jaañ ak mbooleem mbokk yi fi nekk yépp te yëngu ci xasaay yi yëngu ci sëriñ bi kenn ku ci nekk na nga lay fekk fa nga nekk ñu jottali la am nuyoo di sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala mi nu mayaat nu dellu siwaat ci béréb bii fekk siwaat jataay bii ci bis bii nga xam ne mbokk taalibe yi dañoo dajaloo di ko def muy bisu sëriñ Ahmadou Diaw Pakha te bisu sëñ Modou Diaw Pakha mooy bisu Cheikhul Khadim ndax Sayxul Xadiim la doon liggéeyal moom la joxoon léppam ba sëriñ bi gërëm ko ngërëm loo xam ne adduna la ak alaxira mu nekk ku ràññiku koo xam ne it waxuma taxawaayam ci wetu Sayxul Xadiim ci bëgg ko ci di ko liggéeyal waaye won ngim nu won portaleel nu jëmmi Serigne Touba ci boppam xamal nu aslaf ci ay darajaam ak i baqaamam xamal nu aslafit ci ay mayam ba tey jii képp koo xam ne gëstu sëriñ bi am nga ci yitte bëgg ko boo dellu ci ay kitaabaatam ay mu muallafaatam danga ca fekk lu doy sëkk loo xam ne mën nga caa xam kat mooy Cheikhul Xadim te xam aslaf ci sëriñ bi ngëneel la ndax jëmmi sëñ bi ci boppam day ngëneelul yàlla mën nga koo xamee ci biir mag ñu baax ñi ko toppoon cër bu rëy bi am xam-xam bu bari bi nekk ci ñoom mu ne kon amul sikk sàkk ne sëñ Tuubaa mooy baxru na daa waaye mooy lay mooy mooy gaynde ak xaw siin man xada képp ku alku sëñ teg la ca yoon ba nga nekk ko jàkk mu ne laa inna sa cheikh alxadimi wasila ala u rabbul ma jid foofu xel am moom mooy wéeruwaay bi nga xam ne yàlla ko yëkkati mu kawee ñépp man xaasasa sayqil xadiimi bi sayqihi fa tayaqanu bi dalaalihi li mutashaddid nee na képp kuy dandale Serigne Touba akub sëriñam nee leen na leen leer nañ ñi ne ku réer ku tara ngi noonu nee na ku réer ba xamul fa muy jëm mooy dendale Serigne Touba ak dala moo tax ku tëkkale Bamba ak sëriñam dafay nar ne géej ga fa ndar gise su ko mbar fa yaasin kon day mel ni ñoom dañuy dañuy saxal ne rek koo gis mu koy dendaleeg waayam nee na dafa réer mu ne kon sëriñ bi mooy ko xam ne nuurun ana la kullu ufuxil yi fal nastandir bi nuuri nahnu li lënd lëndami kukk la fi fekk àdduna bépp leer na tey fu leer lu ko leeral sëriñ Tuubaa béréb ya gënoon a sori ca Kajoor baa ca Bawal baa ca Siin baa ci àdduna bi demal ci les cinq occidentaux lépp foo ca dem continent lii foo ca dem fekk fa leer gu takk lépp jëm ci Serigne Touba loola nag la ko waral mooy leeral na gox yépp ba tey fu nekk baatub yàlla nga fay jolli laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lépp lu di neen ma mapp ko hadamtu baatilan bi haqqin fa zahaq loolu tegtal la ci mabbu ay neen hadamtu bil ilahi bunlatal fira wala ulaaxi abadan man kafara sëñ Tuubaa nee na tabaxi fen yi ma fi fekk màbb naa ko saxal na yàlla képp mooy buur te loolu mel na ni lu lànde la lu yaatu mu ne lawla lawla xadimul mustafa kunna abidan xaadimina li ay shaxsin kat yi kon la ak sant war na nee na bu duloon ak sëñ Tuubaa jaami tubaab bi lañuy ñuy doon jaami tubaab bi kon sëñ Tuubaa mooy ki muccan mooy ki nu sobe mooy ki dox suñ diggante ak ak noteel nga xam ne kon moo nu may liberté may ñu indépendance te loolu lu leer la ci ku xam histoire te gëstu ko dana xam ne Serigne Touba daf noo muccal mu ne law kaana insan mislana la baqa bi aydi al mushrikin al halikin al hasad fetal neexutu mucc posen neexutu mucc te lu ci nekk def nañ ko Serigne Touba Serigne Touba mucc dellusiwaat ci ak njabootam moo tax mu ne bu fekkoon ne law kaana insan mislana la baqa bi aydil mushrikiina al haalikiina al hajat bu doonoon nit comme nun nee na dana des ci loxo yi nasaraan yi te Sëriñ Tuubaa fu nekk jaar nañ ko fa lu ne def nañ ko fa waaye mu taxaw rek wéetal yàlla saxal ci boromam subhanahu wa taala jadalta kullu mubarisin wa sabaxta kullu musaabiqin wa alawta hatta sutta kullu muzawid képp kuy léewtoog yow jàggi nga ko daan kuy jëkkalanteeg yow yaa ko jiitu kawe nga ñépp yaay sang bi yow sëriñ Touba Serigne Touba bakkan mbër la mu ko song Serigne Touba daan ko bànneex mbër la Serigne Touba daan ko àdduna mbër la Serigne Touba daan ko seytaane mbër la Serigne Touba daan ko tubaab bi mbër la sëñ tubaa daan ko moo tax sëñ Tuubaa nee na mucc naa ci bakkan mucc ci bànneex mucc ci seytaane mucc ci àdduna fa nafsu wal xalq wa seytaanu xat farahu min xat durri yali du netta xat salama ku ma sa léew toog moom rek daan na la iblis mbër mu bon mii nga xam ne ku ko jaral jóg bariwut la ëpp ci ki muy song day yónni ay gaayam Sëriñ Tuubaa nee na naagu naa ci moom ne mënumaa yàqal ndax fa jeewal laa ko jàggee ruuru kon ay yasaminilahu inda jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yawali أحييت سنة خير الخلق أحمدا بالتمسك والتوكل والتجرد dundal nga sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jàpp gu dëgër ci alxuraan ak sunna ak wakkiilu ci yàlla ak rekk ku ci lépp lu dul borom bi subhaanahu wa taala waaye alfayta qawman xaaidiina li jahlihim wa musaabiqina li ay fialin tamarad fekkoon nga ñoo xam ne nañ ci ak réer yaa leen gindi fekkoon nga ñoo xam téppërle woon ak alkane nekk nañ ca yaa leen gindi wa xamaytahu ba mu jënd nag mooy da nga koo aar ci ay soldaar nga xam ne alxuraan moom ne Serigne Touba taxawu na ba alxuraan sakul boppam ne yonent bi sakkoo ci yàlla Serigne Touba nekk xaadimam noonu la alxuraan sakkoo ànd ak Serigne Touba te duutu tàggoog moom raamal kitaabu kawnuhu ma'i bila tafarruqin loolu tegtal la ci kon alxuraan moom moo moo moo ko sakk moo tax mu ne téereb yàlla bi nekkal na ma ma nekkal ko moom laa dëkkaaleeg sama borom kitaabu rabbi kaana li wa kuntu lahu wa lillaahi bihi sakantu kon Serigne Touba moom mu ñuy wax moom la Cheikh Ahmadou Diaw Pakha sultaanul aarifiina doon liggéeyal di ko jàngale di ko wone bi taalub diine bi takkee àdduna séen ko jëm mi sëriñ ahmadu joppaxo mi nga xam ne dafa am jagle am tànneef ci sëriñ bi dafa bàyyi léppam bàyyi ñéppam bàyyi féppam jàpp sëriñ Tuubaa loola nag bu fekkoon ne ay wax la rek te du tegtale mbind kon danga xam ni kii ñu doon nettali léegi ku ci def nii sëñ Ahmadou Diaw Pakha def te defe ko ni mu ko defee mën na laa jural cër bu rëy bu dul jaax kooko mooy kan sëñ Touba moom mooy kan sëñ Ahmadou Diaw Pakha am na lu mu ci andi wone ko nee na mooy ki nga xam ne dafa jubal képp ku réer waaye yëmul ci ku rekk rek waaye kaangeeg fóore yi sax sëñ Tuubaa leen gindi jubal leen daat na man nag tagg ko moom Serigne Touba moomee sama bor la mooy sama jikko mooy sama melo man Ahmadou Diop Pakha ñeel na ko nag jéeri jéeg géej gi barru wal ahli lahu madihi lugan an lagan zaddani lugan an laga benn bi li muy tekk luga lagan be mooy ay neen mu fegal ko ko li abdin xadimin hada jahila wa xibran fa matxi lahu daydani li tax nag kii moom mën a tagge sëñ Tuubaa way yu mel nii nag dafa am ku ko foto foto bu gàtt di boroom xam-xam muy sëriñ Balla Buso sëriñ Balla Bousso borom xam-xam la njaareem la nekkoon waaye wone na ne bu dee naxwu ak zarf dégg arab rek nee na sëñ Ahmadou Diaw paxa moo ci raw ñëpp kenn melu ci ni moom loolu kon wane na xam-xamam bu rëy bu mu am waaye wone na ak beroom gum beru ba mu koy tagg di ko misaal du ko ca feeñal ala yaa fatal fidyaan يا روضة الخرى يا روضة الخراء ويا لجة القاموس أعجوبة القرى لقد فقت في صرف ونهو كليهما فلا زلت يا مكرام جاسوس من خرى andi na ci ñett benn bi tegtale ab dëkk benn bi tegtale man man mën a jàng benn bi tegtale ab dëkk sëñ bi tegtale kaweeg melo ci ay jëf yoo xam daf koy taxawee nga xam ne ak bernde nga xam ne xaraa xiraa xuraa sëñ Cerno nettali na ma ca gosaas ne keroog bi mu ko waxee sëñ Ahmadou Diop Paxa tagg ko ba noppi sëñ Ahmadou Diop Paxa dane ko xiraa xaraa xuraa yow de diw diw daqu laa jàng bañ a tudd tur bi diw daqu laa jàng sëñ nee na sëñ Balla bu sunu ko ah ëpp la xam ko ah, diw ma rek ma rek kon day ci xam-xam ak wu kooka nag moo ñëw ci sëriñ Touba moom sëñ Ahmadou Diaw na ko ataytu ko yaa xutbal wara mu min al ahli wal awtaani xayraka naasiya dikk naa fi yow xutbal wara bi njiitul ñépp mutaxayiba nag faddu bàyyi ñépp min al ahli wal awtaani bàyyi naa dëkk ya bàyyi naa kër ya fàtte naa kudul yow xaadimu rasul man sëñ Ahmadou Diaw taxa loolu kon xanaa dana dëppoog li sëñ Touba duutu doom du alal duy koom fàtte naa lépp ngir bëgg rasulullah sëñ ahmadou jaw paxam it ñëw na sëriñ Tuubaa bàyyi naa kër ya ak njaboot ya fàtte naa ñépp ñu dul yow wa farraqtu ahli kulluhum bika muumina wa alqaytu da amnin ilayka nawasiya tàggoon na ak sama jaboot ñoom ñëpp yow laa gëm yow sëriñ Tuubaa jël samam nos jébbal la te am kóolute gu dëgër ca loola nag ولست أبالي بالبرايا جميعا إذا غديبوا والله إن كنت راضيا فالي من نتني من أحمد جو بقى بني مري نوخم خم بوما غرمي سن جوبا باخنا من غا غرم رك سن غرم باي فاليو مو ميرم نتني اك سيني واخ ويا قطب جلي بالمراد جميعه كوني من اهل الله في الله ساعيا اك ديغ سن بي تخم لي dikkee ma ci samay càkkutéef li may wut naa ko am lépp ci lan laa bëgg man Ahmadou Diaw Pakha bi kaw nii min ahlillaahi fillaahi saaya mooy naa bokk ci gaay yàlla yi ci naa ci bokk naa bokk ci gaay yàlla yi min ahlillah ahlillah bokk ci ñooñ yàlla ñi wa kaw nii ilayhi bi taaddubi waasila wa talyini qalbi baada ma kaana qaasiya ak sama nekk nag jëm ci yàlla egg ca te ànd ak teggin waaye yëw ca nooyal sama xol ginaaw bi mu nekkee bu dëgër wax sëñ bi lu doy waar wa tuusuli nii in shita fi nisfi saatin li kawnika fi dahri fi dahri fi l ardi aaliya fa ahyaaw shaxshan fi l amaakini maasiya nee na boo ko bëggee xam mooy ki dikk fekk diine ci boppam dee diine dee Serigne Touba ko dundal ba diine di def ñaadam ñaadam ci béréb yépp kon diine tëroon nañ ko rey ko ka ko dekkal dundal ko mooy Serigne Touba loolu la Serigne Ahmadou Diopax kon l'islam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sawu jant fépp mel ni lambaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ne yàlla may chafian kulla jiili may xaadimu rasul fi sudaani may rab mu xarunu bi andi kon fekkoon na diine dee dundal ko loolu si Ahmadou Diopax ndax ca la yem ku xam li mu jëflante sëñ Ahmadou Diaw Paxa ji ci xam-xam na ko xam kon melo ko yàlla jagleel tax na mu wax la kan mooy Serigne Touba nee na it waxat tawakkaltu fi kullil umuuri sama mbir yépp kan laa ko wékk mooy sëriñ Touba sëriñ Touba moom mu nga xam ne boo ko bëggee xam. nee na mooy sayxul masaayix mooy sëriñub sëriñ si moom muy nag laa jox sama dund moom laa jox sama faatu bàyyi naa xalam di xalaat ak sikki sakka am naa lu ma wóor ci ne man Ahmadou Diop Pakha sama lépp bàyyee naa ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daan na waaye nag mooy koo xam ne wala si lastu unsa lutfahu walahu hamdul wa shukru alayhi ni'ma min rajul nee na kon yëg nga ne bi sëñ Ahmadou di ñëw sëñ bi nekkul mag mu ñuy wax waaye sëñ bee ko ñeewantu woon di ko bijjanti mu ne kon maa ngi koy sant di ko gërëm du ma fàtte mukk ñeewanti gi sëñ Tuubaa amoon ci man ak bijjanti wax na chakartullah rabbi id hadani ila cheikhin ala ahla zamani maa ngi sant yàlla lu ma tax may sant yàlla man Ahmadou Diop Pakhaw mooy sama borom dama jubal ba ma jubalee jëmee ma ci kan ila cheikhin ala ahla zamani ma ci sëriñ bi nga xamne kawe na ñooñ jamono ñëpp mu Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul ila sayyidin waliyin la yubara hawa ma la yafahu bihi lisani neena na sëñ moy ko xamne xam kenn du dend ak mom kenn du gam-gam lek mom lambo na lo xamne duma ko tuddu sama lammiñ man Ahmadou Diaw kon loola lu mu doon ak lam ca léral lépp mu ne am na la du ko feñe ila sayyidin taghayyaba fi biharin likay yarqa ila ala al almakaani mooy sëriñ bi faddu dem ci géej gi lu ko yóbbu ngir mu am ca maqaam mooy gën a kawe kon sababu xaybati anna allaha araada an anaala minhu jaaha kon gis nga ne loola doon na doy ci sëñ Ahmadou Diaw Pakha mu am melokaan wu mel noona bokk na ci liy tax a gën a jariñu ci nit te mooy bëgg sëriñ tuuba sëñ Ahmadou jaw bëgg sëñ Touba mooy léppam bam ne du ma faaleete da ca bolé lan moy wirdam ta gis nga nim xewé jëlé jëf sëriñ Touba bëgg sëriñ Touba sax ko ci soxol sëñ Ahmadou Diaw pax nak mom dafa kosse ne mahabbatu abdul khadim wirdi wa huwa ladat al arsh xayru wirdi mbokk yi nañ taxaw fofu tuti bëgg sëriñ Touba mahabbatu abdul khadim bëgg Cheikh Ahmadou Bamba wird yi mooy sama wird man Ahmadou Diop Paxa te wax wala daa sal arsh xayru wirdi bu ne woon fi gaañi lu waay yor wirdi bi ma yoroo ko gën waaye dana mun fa yàlla bëgg sëñ Tuubaa moo fa gën ci wirdi yi loolu yaa ngi koy dégg ci sëñ Tuubaa nee na ku ma bëgg loo bëgg ngay dajeel te gaa yu baax yoo doo tàggook ñoom xaw alladi yuhibbu nii man taqaba ولا يفارق الخيار النقباء ما بو خسي بغ سنجبا دو كون كين خيار النقباء ياغ بوك نخ ادي تخي موي بغ سنج بي نخ يالا خلو كو تخي بو نيك تابال نك ادخلتني في قلب كل سي فلا وكنتني الى جنات بسرا محبة عبد القديم تكفي الشر وعن جلب القيور تكفي لكن بغ سيرن day fekk ay lor te day xëcc ay xéewal bëgg Sëriñ Tuuba day taxa am barke te barke mooy lol bu duggee ci mbir fekk ko mu tuut mu balin ko loolu kon bëgg kooku jural na ko lu bari waaye nag sëñ Ahmadou Diawit amaat yeneen tawféex ci Sëriñ Tuuba bokk na ca mooy Sëriñ Tuuba nee na ko yaay sama jaww may sa asamaan loolu it am na wax joo ci nekk joo xam ne sëñ Ahmadou Diaw waxtu wu ne day wone ne sëñ Touba kenn du ko dendaleeg dara xoola kii xam-xam bu rëy bi mu yor maliku noxaat tuddoon na ko wallu xëy wii tudd na sultaanul aarifiina wa maxrafatul xaarifiina bu dee xam-xam ak wéetal yàlla ak cër bu rëy sëñ Touba won na ko mulkoog malakut ca gànnaar moo gis wet yépp sëñ Ahmadou Diop paxam mii dañoo won ne boo bëggee xam Serigne tubaab moom nii ñuy def naan gars yi di limu blist naan diw diw diw diw diw sëñ Ahmadou Diop nee ne déedéet te ne mun jidu na al fard alladi la yujma wala yusanna wa siwaahu yujma kama yusanna mun jidu na kii di lu kii di lu muccal al fard mooy kenn ki nga xam ne laa yujma kenn du ko boole ci mbooloo wala yu sànnaa kenn du ne sëñ Tuubaa ak si waaw ku dul sëñ Tuubaa nag mënees na laa wutal groupe bu ñu la boole man ne ni diw ak diw waaye sëñ Tuubaa képp rek dong sëñ Ahmadou Diaw moom la ñuy te mun juddu naa la wax ki ni muccal ki ni xettali alfard na ci ay tegtale ni ko leerale sax ci melokaan yu mat yooyu moom nee na yow miy def sëñ bi moroom ak siwo ci man ndax asamaan si jaww suuf si ci ron jaww la nekk jaww ji asamaan si ko tiim te nee na ahmadu jaw jawwun wa cheyquhu sama wal ardu taxtal yi laa taxta sama ahmadu jaw mooy jaww ji wa cheyquhu sëriñam sëñ tuba sama mooy asamaan mooy ki kawee tiim ñëpp wal ard suuf sii taxtal jaw yi mu ngi ci ron suuf laa taxta sama nekkul ci ron asamaan kon yéen ñi dëkk sëñ tubaa di ko def morom yéen a ngi sama ndëgguy tànk jotoo leen sëñ bi man maa ngi ci ron daam xolo war ma jëm jox sëñ Tuubaa ni mu ko jàngale wuuteeg lool ku ko ñi nga xam ne ku mokkal ñaari addis di wut looy logga-loggal ak looy gëm ak looy saxal ak looy weddeeg waaye nangam ak wut noo koy gisee sa sëñ Ahmadoo leen raw fopp gën leen a ragal yàlla fopp gën leen a jub fopp ëpp leen barke ëpp leen bati moo tax gis nga lam ñu dénkoon yéen waa jamono ahlu zaman la wax yéen jamono jàpp leen Sëriñ Tuubaa te loolu fa mu ko tàmbalee moo gën a neex ci xasida gi yaa man yuridu murabbiyan hala taji la muxiitina shaafi alxuluubi min alal yow ki namm yàlla bëgg sëriñ bu lay yar waaye xanaa doo ñëw ci xette laa kon bi nga xam ne day saafara ay xol ci ak ragg ala taji li ahmad ibnu muhammad wa huwa allazi la nabtaghi bihi badal minhu badal nee na boo ko xamul mooy sëñ tubaa doomi Sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali mi nga xam ne huwa lazi mooy ka nga xam ne laa nabtaqi minhu badal duñ wut luñ koy wottee duñ wut luñ ko sensé duñ wut luñ ko wuutal sëñ Tuubaa képp lay doon ci noonu huwa lazi man jaa jaahu mutabaayaa naa lalladi yabgi jamian min amal sëñ du Diaw nee na ku bàyyi say bokk bàyyi sa kër ñëw ci sëñ tubaa jaayanteek moom nee na lépp looy séentoo ko yaakaar ak di xemmem da nga ca jot لكنه من جاءه متعاديا لقي الذي يلقى الاعادي من وجل باي كو نيو ديكو نونو نك داجك نياخاري اك تيتانغي جو خامني كوكو نونو تي دانغ دانغي دك ندخ وجل جوجو موي خلوب من لم يحبوني على وجل ولا يلاقون ما راموا ولا البابا من سيني توبا بوكو نيهور لو شاءه نيل الغنى لرايته خارون موسى من لثروتي ابل nee na bu fekkoon ne alal la ko jor alal la bëgg nee na day mel ni xaaruuna ma nga xam ne koomam maa ko réeraloon nee na bu sëñ Tuubaa bëggoon alal mooy raw xaaruuna bu ko alal ñoroon moo koy raw lakinahu taraka alfanaa mubaadira fi kulli waqtin lil baqaa'i bila malal sëriñ Tuubaa dafa bàyyi lépp luy jeex jàpp lu dul jeex mukk baxru shariati wal xaqiqatu dahruhu afnaahu lil maabudi foofu ci laamam kon gis nga ne melo yooyu muy jàngale ak doxin wu rëy woowu sëñ Ahmadu dégg woote ba takk dem gànnaar fekk fa sëriñ Tuubaa mu ne ko tontul ma naar yi sëñ Ahmadu di jéggi jéego yi jëm ci sëñ bi jëm ci naar yi sëñ Tuubaa di wàññi jéego naar yi dajale laaj yi kenn ku nekk la ngay laaj laaj yu làqu laaj yu ruqe laaj yu kawe lu waaye laaj sëñ Ahmadu tontu lu waaye laaj sëñ Ahmadu tontu ba mujj naar yi yuuxu na ko xanaa yaay sëñ bi mu ne deele bala wunaamu man ma as ngóoram laa xoolal boobu dayoo kon am na lu sëñ bi namm ci moom waaye nañ dem ci sëñ bi waaye li ngay xamee ne sëñ bee ko nam ma dimbale sëñ Tuubaa dana ko bi ngay jëm ci naar yi maa ngi wàññi sa jéego yi bi ngay yegg boo ca dolli woon benn loo wax duñ ko xam loo wax duñ ko xam waaye loola nag sëñ bi mayee na ko ci tawféex yi nag won ko ñaari weti mulkook malakoot yépp won ko lépp mu xam ko nga xam ne minal bidaaya ba ilal nihaaya lu fi am ak lu fi xew sëñ Ahmadou Diop Pakha xam na ko loole mu waxoon na ko damaa bëgg bokk ci góor yàlla yi dem na ba waxal ko boppam lettre boobu sëñ Cerno moo ma ko woon mooy bi mu bindoon maam Cerno bi Gosaas Pakha googe ci Gosaas bi mu lakkee lettre bi mu ko bindoon wax ja wax na ci alhamdulillahi lazi jaalani bi darajati fardil abdil qadimi min rijalillahi maa ngi sant yàlla mi ma def ci daraje Serigne Touba ma bokk ci góor yàlla yi min rijalillahi góor yàlla yi nee na woon dama bëgg bokk ci góor yàlla yi ab diir mu ne sant yàlla mi ma def ma bokk ci góor yàlla yi kon melo yooyu la Serigne Ahmadou Diaw amoon ci aw dox yi nam wuréy waaye pas-pasam bu kawe ñi mu bokkaloon Serigne Touba it ñëpp bëgg ko fonk ko mu bëgg leen ñoom it fonk leen kenn ku nekk xam ab cëram xamub dayoom Cheikh Ibrahima Fall boroom Daarul Muxti waaye kum ko tudd rek yàlla dogal mu teel a wàcc sunu jàmbaar ji fi nekk Serigne Thierno mu tudde ko borom daaru ba noppi yóbbu ko ci moom borom daaru na dana gudd fan dana fi yàgg dana am barke dana am cër góor yàlla loolu moom sëñ Cerno ma ko nett safoo ko te loolu sant yàlla la nu ko xasiida nii rek la war a mel gis nga nekk ci sëñ Tuubaa ak sëñ Tuubaa ne ci yow bokkut boo nekkee ci sëñ Tuubaa oto yeeg kër yeeg soxna yeeg yëpp mën naa wër ndax matériel la te sëñ Tuubaa soxla bu sëñ bi nekkee ci yow nag sa jikko mooy baax sa jikko mooy rafet kon lii bég nañ ci yéen noo boole ba nag yéen bu doon maag yéen ku ne day jéem a tëgg wëndeel moroomam waaye yéen xam nga yeboo leen seen cerno man mii yebu ma ñoom ma seen cerno jottoon man naa leen a bàyyi ci biir waaye seen cerno moom yàlla dogal mii dagal nit di respecté nit ak bëgg ko ma bëgg ko fonk ko te man xam naa li ma am ci moom ndax man bu ma ñëwee ci kilifa damay fexe ba xam laaj laajte yu wut rek wax ko ku mën a dimbale nit la ku waax la ku bëgg jàmbaar lay it sëñ kon maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant sëñ Cheikh gërëm nañ leen yéen ñëpp sunu xol sedd na Cheikh Moustapha sunu xol euh, sedd na yàlla na nu yàlla boole dimbale defal nu tawfiq defal nu dimbalul xaadimu rasul sëñ Mbakke Ka jërëjëf yow it noo ngi lay ñoo eh, ngi lay jaajëfal baax jërëjëf ñoo ngi lay sant kon ñu bal noonu it nu génn daw bàyyi ñu ci des yeggalewaat leneen li ci des lu des ci waxtaan wi eh, nu xam ne yitte yi lay xat-xat yi waaye sëñ Ahmadou Diop Paxa moom ku neex a waxtaane la ndax man defe naa am naa ci ay tegale yu bari ndax sëñ Thierno dama koy jox ba nopp bu ma laajaatee ma bëgg mu gën a bari ak mu joxaat ma ma mel ni ko amul mu yëkkitaat jox ma am na ci yooyu mbindum loxoom boppam lay doon nga xam ne moo la koy bindal jox la te lu jafe nag la def mooy ni maîtriser sëñ Ahmadou Diop Paxa lu jafe la fi ne léegi la nga dem ci kër di gëstu kilifa dañ naan la xoolal bàyyi diw ak xool bàyyi nag nga xam ne léegi-léegi ñu booleel ak paa bopp lu mu sentir lay wax boo ko doon laaj ab dat sax du xam 1900 nanga daan la lool de xanaa moom atum ko benn lay doon nga la yow xamoo barigo ñaar sax bay am xam atum bari ko benn boobu dat noo koy xame waaye fi ne sëñ Thierno booy wax ak moom ci sëñ Ahmadou du baxa lu mu la war a wax koy taree sax yow da da da di ko tari lu mu war a wax rek tari ko ñëw naa fi ci màggalug daaw gi di ko laaj si ci màggalug Tuubaa gi keroog moom la introsé moo tontul boppam fii ci mbaar mi la génn wax ñu ndigal li ni ko sëñ Tuubaa joxee sëñ Ahmadou Diop Paxa ñam jaari ci sëñ Balla Faali Jeng ba nga xam ne daana rey gàtt di reyal gàttub sëñ Balla Faali Jeng ci màggal geeg pas-pas bu dëgër boobu moo tax benn benn act bu bu sëñ Ahmadou Diop Paxa am bu nekk doy na ngëneel boo tuddee gànnaar doy na ngëneel boo tuddee njaareem doy na ngëneel te am na bis boo xam ne soowee na mag ñépp ci kanam Serigne Touba ndax dafa xëy bis wax ne Serigne Touba dana woote man nag du ma wujj ay ku wujj ba ma rekk dem sa kon xam nga loolu am na lu xew ba mbooloo ma dajee ñoom ñëpp sëñ bee laajal boppam ana Ahmadou Diop pax ñu ne ko ñëwagul mu ne dem leen wooyu kon gis nga gis nga ni ñu déggantee lu ma wujji te ku dem ba ma dem sawal te sëñ bi xam na ne ñëwut mu ne wooyi leen booba moom a nga ci mbind ma di tagg Sëriñ Tuubaa sëñ bi daw ko jottiloo sëñ Malick Ndiaye la doon jottiloo waaye keroog bëgg a li nit ñi mu nga wax moo tax sëñ Tuubaa ko waxal boppam ne ko ahmadu neel fere yi nañ sant yàlla seen borom waaye gis nga bu nekkoon nañ sant yàlla moom day jël cant gi delloo si ko jaam ñi ne ñi ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay dellu mu ne ko ahmadu borom asamaan ak suuf nee na nga mu ne ko xam nañ borom asamaan nee na yow ñi ngi lay sant yow lan la ko sëñ bi tegal bu ñu defutoon noonu ma bàyyi leen suñu borom mu lakk leen kon sëñ ahmadu dimbale na murid yi dimbale na gaañ yi ci kanam sëriñ Tuubaa ba mu ñëwee bëgg a toog sëñ bi ne ko ahmadu jekkil ne sëñ ahmadu jopax a toog ne mu ne ko fi nga bëggoon a toog iblis a fi toogoon iblis dafay ñëw léegi dama doon laaj yett ci géej gi aw ma woon jot ñëw na fi jox naa ko iblis dafa doon ndaw lu nunguuta liggéey mag mu nunguuta jaamu yàlla jigéen ju nunguuta sëy jox naa ko ko sëñ bi nag sëñ Ahmadou Jaw na ah, yow de nee nga iblis amul wàll sa yëf xanaa waxu woon ayee sa minilla inda jeewali iblis isnaadaytuhu bi yaa wali sëñ Tuubaa ne ko Ahmadou ma ñëw dugg ci biir génn ñaq wi di seppi sepp mu ne ko mag mu ne war am ko koy jaj Ahmadou Jaw paxa bi may dab iblis di nungu ñett yi mi ngi dugg suufu su gabam kon ndaw ñi ku ne amee na can sëñ Ahmadou Jaw paxa moo nu foqar ñee ji loxoy iblis jigéen ñi nu ngu wuta moo leen foqal ñi mag ñi nu ngoo retraité ci jaamu yàlla moo te loolu lu bari ci yoon wi la nag ndaw lu nu nguuta liggéey paa yuy dekkoon duñ yàlla ak jigéen ñi nu nguuta yoon wi moom moo ko fees dell moom paa yi fii lañ toog lank bañ a jaamu yàlla dañ bu julli jotee yàlla salaat xaw ma lu ñuy wax sax dekkoon lu leen neex bu doon sëñ Ahmadou Diop paxa ca mbooloo mbuubit moomee ca pañe ba lañ jëm kon fi ne paa yi dul jaamu yàlla war nañ koo sant jigéen ñi nanguwut a sëy war nañ koo sànn gone yi nanguwut liggéey war maanaam sëñ Ahmadu dafa régler situation bi li li mbalit mi daal la dabi rek génne jugoon na ko wërta dem kon yin ko war a sante bari na kon jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ akasa paa yi lay ree paa yi paa yi nu paa paa yi paa yi sérieux wul yooyu nanguwut a jaamu yàlla loolu lay ree lank lañ def du ñuy bàyyi faal ba noppi duñ jaamu yàlla bu noot lu jotee dañuy daal di sóonu bu jóg jo lànk rek moom daal xaw ma lu tax ñu lànk seen yoon nekku ma doo ko xam ñoom lu leen neex la ñuy doxale am naa dañoo yëg li li sëñ Ahmadou doxale ak ñoom ci dabi gi ñu leen dabi waaye xam nga ne kooku gaaw na de njëreem tak tak ngay dugg suufus gabam fu mu jëmoon kooku daana roon sànku jeg pay ay jërëjëf sëñ Ahmadou Diaw asalaamaaleykum wa rahmatullah